mi ngi noonu cher ami internaute ñu ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam ñu ngi fii ci Grand Théâtre tey suñu teewaay lenn la Baxaw ak Asiko famille ñoo fi amee benn concert bu ñu naan guddi Ndakaaru ñu ànd see Dakar midi ak SPR 21 TV sama cameraman ak ci ñu dem jël quelques réactions ak ci let's go cher waaw waaw xanaa ñëw topp si baxaw asiko rek man moom maa ngi jóge ba Kédougou waaw waaw ñëw fii pour événement bi rek ñun moom baxaw rek la topp man ñëw naa fii depuis mercredi waaw baxaw rek waaw c'est la première fois ah, ah. an ko iya iya koo xam xam ne iya bu kusum iya bu Mame Boye Diao mun nañ xam sa teewaay fii lan la waaw sama teewaay tey dama ñëw gis sama raq bu nekk ci milieu art di ci yëngu ba dem ba commencé moderniser li nga xamante ne moom mooy asiko ndax asiko ku ko xam bu njëkk da nga yaakaar ne maanaam ay dof ñoo ko doon tëgg wala maanaam léegi da ñëw nga xool asiko nga xool ay nit yu correct toog di ko tëgg moderniser ko bëgg ko yóbbu foo xamante ne c'est international te tey booy maanaam euh, but boobu la ñu am ci asiko moo tax ma bàyyi sama lépp ñëw parce que xam ne lii lu sérieux la ndax ñun ci lu ku ñu xam-xam ne ñun ci lu sérieux la ñuy dox ak ci lu direct waaw loolu nag moo waral sama teewaay di ko ñaanal nag moom mu feesal salle bi ndax salle bi fees na ba pare sax fees na ba pare ñun kay li ñuy ñaan kay mooy mu woy loo xamante ne tey international ñëpp koy déglu dégg ko mu persévérer si musique ba am li mu bëgg loolu nag laa koy ñaanal waaw ah. soxna si mën nañ xam seen teewaay <laughs> ñëw teewal suñu doom mbokk doomu ndeyu Medina Baxaaw li muy def rafet nice ñu ànd ak moom ci ASC Jaraaf bi ànd ak moom ci ASC famille bi comme ni mu koy doxalee rek ñëw pour participer ci affaire yi rek ànd xale yi demee ñu naan ko ndooy ndooy ndooy sa teewaay ndooy naka mu naa leen de naka yi tey mbaa lépp jàmm rek sa teewaay tey grand théâtre fii waaw mais guddi ndakaaru wax na lépp ndakaaru su wootee ñëppay ñëw baxaaw boobu bien la dañ koy ñaanal rek premier événement neex na di ko ñaanal affaire yi gën a yokk rek moo tax ñu ñëw pour jàpp si affaire de Médina la affaire de town la waaw dañuy sot noonu la fa demee xam nga rek Ndakaar moom bu wootee ñëppay ñëppay ñëppay ñëw noonu la fa demee jaajëf Kabo soxna si noo def ça va. mën nañu xam tey fii ci ginnaaw théâtre. non parce que sama mag bu góor moo fi day daa bokk si ñuy tëgg asiko loo tax tey ñu ñëw fi. bay la. man Medina. Medina bëggee eh, maan ah, sant yàlla. mën nañu xam sa teewaay tey fii nii ci Grand Théâtre. waaw grand jégalu de xam sa teewaay tey ci staff bi nga bokk wala da ñëw en tant que Boy pour soutenir Baxaw. man dama ñëw en tant que comme Boy Médina pour soutenir Baxaw dama ñëw tamit en tant que staff pour gën ko dooleel. Ah, non bokkuma si staff bi sax mais ñu ñëpp booy maintenant ñu ñëpp ay staff lañ. Mm-hmm. dañ koy dooleel yokk maanaam yokk doole daal. deret dañuy sot deret maintenant mooy daw fépp. waaw dañoo ñëw en snapper en staff en tant que artiste ñëw. suufu kaaj ñun du ñu bàyyi dara ba xaar rek la ngeen jugee. ñun Medina lañ laa jugee baay. waaw waaw sama mag laa lay sotti kii lay sotal quoi Baxaaw. waaw bi laa siyaane na tawfeex de ah. waaw si avec Baxaaw yëngal ko rek. Medina laa jugee. damay waaw Baxaaw yegg international billaahi boo tee bëgg Ndakaaru. mooy borom. soxna si mën nañu xam fan ngeen jógee Medina fan fan ngeen foo jógee. Medina. si mën nañu xam fan ngeen jógee seen teewaay fii lu waral seen teewaay. Medina lañ jógee. ah Baxaw suñu doom la. suñu doom la. moom ngeen di ñëw pour dooleel ko rek. Thier mi ngi noonu. mi ngi noonu mais day daw président lu muy daw. président dama daw. président laa daw. président waxal ñu. barke am waaw suñ mooy xam am mbégte ba pare rek di siyaar gars yi di wax bisimilahi rahmaan nañ ko duggee si bisimilahi rahmaan génnee si alhamdulilahi rabbil alamin quoi waaw di siyaar ñëpp di béggee ñëpp waaw mais instant xam nga Medina moom bu xewlee moom ñun ñëpp dañuy ñëw te instant affaire du Medina kese Ndakaaru Njaay si boppam moo xewle waaw billaay walaay talaay walaay rasi le prince xaw waaw billaay walaay talaay moom moo xewle non même pas sax instant waaw loolu la affaire de Dakar ñun ñoo moom Sénégal Dakar mooy Sénégal. billaay. non loolu dara loolu firndeewul. kan ba da nga yëgul lu xew xanaa. ñun ay dañoo solidaire. Ah. kenn du dem baa ñeneen ñi. yaa ngi dégg dafa war dafa dafa waroon dem ah. ñu ne ko moom kese dem mu ne demul moom kese bu yeneen booy demul du dem ñu woo ko ne ñoo ñu dem mu ne na bàyyi bu événement bi jàll bu événement bi jàllee. ñu dem suñu yoon ñu dem suñu yoon teg si équipe bu mag bi Afro Médina bon euh, tey dama ñëw Grand Théâtre ngir bésu Baxaw mu nekk euh, nit benn booy naan George ñu ko ci George ku xam waaw mi ngi noonu ñu ngi fi ak Mouhamed George mi ngi nii taxaw George mën nañ xam sa teewaay fii. waaw ah, Ibra waaw tey moom sama teewaay fii moom du leen loolu baxaw waaw parce que sama nit la sama lépp la moog jibi barke alxuraan karim lépp lu ñu mun mënti am dañ ñëw dañ may woo ne ma George am nañ lii lii lañ bëgg muy mbër buy bëre muy événement bu mun mënti am koñ ba lépp loo xamante ne wàllum t-shirt la wàllum pip baxaw dama lay njëkk a contacter ba si finalu jiraaf ma lay njëkk a am ne kooku yëg na la ba ticket bi ma yor barke Serigne Babacar jënd ferew ma si dërëm dañ maa woo foo nekk maa ngi sama koñ ñoo leen indil ticket nga xam ne ñooñu yëg nañ la kon tey ak lépp lu moom li ma mënoon jàpp dama koy bàyyi ñëw si bis bi waaw. jaajëf waaw ngi noonu kooku moo nekkoon Mouhamed George